بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ñaan ñu wuutuñu ci jullee ñu ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ñi ko topp ci njub yépp ba bés penc ñu ngi nekkoon ci téere bi ñuy wax alhamziya rihaaba xayr bariya mu toll ci bayit bi muy akbaru niami kawnu nuuru nabiyin xayru man ursila ilayna dilaau wax ne akbaru niam yi xéwal yi gën a rëy ci xéwal yi ñu yàlla defal kawnu nuuru nabiyin mooy nekku leeru yont yàlla muhammad doon xayru man ursila ki gën ki ñu yónni ilay naa ci ñun di daal ndax yàlla lépp lu mu bind yonent bi moo ci gën laa automatiquement kon xeet yépp yi mu am xeetu yonent bi moo ciy gën kon ñun xeetu yonent bi ngëneel gi gën a rëy ci li ñu yàlla defal mooy bokk gi ñu bekk bokk ci xeetu yonent bi ak xéewal gi ñu am moom mooy suñu yonent moo tax mu ne akramul xalqi inda rabbin karimin akramul akramina fal kuramaau ukrimu min sanaahu qabla wujudil kawni fi aalamil arwaaxi yu jaaw akramul xalqi yonent bi muy ki gën tedd ci li yàlla xamal min inda rabbin karimin ci yàlla maanaam moo gën a tedd ci lu yàlla amal ca yàlla ca boppam akramul na moo gën a tedd ñi jot a tedd te muy yonent yi dayar sax fal kuramaa u ñi tedd ñëpp ukrimu ñu ngi leen terale mi sanaahu ci leeram bu fekkoon crédit la moom moo dugalal crédit yonent yëpp la qabla wujudil ni lu njëkk yàlla di amal dara fi aalamil arwaaxi ci aalamul arwaax jaawu ñu indi leen fa keroog aalamul arwaax ba yàlla bindee wax yépp rangale leen teg leen ne leen alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ndax dañ bëgg dafa bëgg yàlla bu ñu seedeel ko ko foofu pour bés bu leen indee ci euh, chantier bi ñoom ñu mën a œuvrer lool fële dañ koo wax fii dañ ko war a jëf keroog ruu gi jëkk a tëb ne balaa yaa rabbi mooy ruuxu sayyidina muhammad moo tax mu ne yawma qaala al ali alastu bi rabbin lakumu qaala bil balaa yaa sanaahu anta nuurul arwaaxi yawma alastu anta nuurul ajsaami yawmi danaahu yawma qaala bés bi nga xam ne wax na al ali yàlla mi borom ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom mu ngi laaj lu mu xam ndax moom mi naan ndax duma seen borom moo pare léegi ci bind ruux yi moom moo ne kun fa yakun ruux yëpp sotteem taxaw waaw kon moom mi leen bind xam ne moo leen moom mais dafa bëgg ñiñ moom ñu seede ne yàlla moo leen moom ki njëkk a wax ne balaa mooy yonent bi moo tax mu ne xaala wax na fil balaa ci ax akay effectivement yaa u yow mu leer moom kon yonent bi jël na place bu njëkk ci doon jaamu yàlla wa ana awwalul aabidin moom moo njëkk reconnaître ne jaamu yàlla moo njëkk reconnaître rububiyatullah moom ak njaamam moo ko gën a njëkk nangu moo njëkk nangu itam yàlla gi yàlla gi mais bu yemoon foofu rek dañuy wax ne moom am na privilège mooy numéro un mais d'ailleurs ki ñeneen ñi wax ñëpp ci leeram lañ ko wax problème foofu la ne moo tax mu ne ant nuurul arwaax yow yaay leeru ruux yi maanaam yow yaa leen ba ñu mën a comprendre lan la yàlla wax yaa def ci seen leer euh, seen ruux leer guñ mën a nangoo loolu moo tax mu ne ant arwaax yi yow yaay leeru ruux yi yow ma alastu bés boobu yàlla na wax alastu bi rabbikum yaa leen connecté mais yàlla reconnaître ne yow yaay awalul abidin yow yaay patron bi mais ñëwee ba ci àdduna bi itam effectivement ba jël ruux yi def ko ci ay yaram yow yaa nekkaat patron wu yaram bi moo tax Seydi Hadj Malick ne hada gaayatul karam foofu nag fa la teraanga yem jiite ruux yi démb ñëwaat fi ci àdduna jiite jëmb yi loolu fa la teranga yem moo tax ma ne anta nuurul ajsaami yow yaay leeru yaram yi yow mii ci suñ bés bi muy àdduna danaa bésu àdduna bu jege bi kon àdduna alaaxira yonent bi moo fi sang anta nuurul ruuxul quluubi kullu nuuruka muqtabis fa ni'mal wafaa'u nuuraka anta yow yonent bi ruuxul bi en même temps yow yaay source de la vie des cœurs xanaa xamoo ne xol fekk gëmagul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dañuy jàpp ne xol boobu dafa tëj néeg bu bu amul caabi la lu fa ne ci valeur itam ci poussière rek lay dëkk ak yàqu ndax valeur lu mu nekk nekk ci barab feew fekk nit duggagu fa du am njariñ xol itam néeg la fekk waxul wa ashhadu anna muhammadan rasulullah doonte wax ne laa ilaha illa allah mel ni yahudi ak nasaraan yi te waxul wa ashhadu anna muhammadan rasulullah du am njariñ xol bi day tëj kon ruux mi nga xam ne mooy dundal xol yi mooy ruux ruuxu yonte Yàlla d'ailleurs kull nabiyin bépp yonant muqtabisun mu ngi niitoo nuuraka ci sa leer yow yonent ñoom ñëpp torche yi ñu amee di ci niitoo ku gis fi ñuy jaar mooy sa leer yow yonent bi fa ni'mal kon matal kóllëre googu baax na lan moo tax mu tudd yonent yi parce que yonent yi li leen def yonent mooy reconnaître yonent bi yàlla moo wax wa id axada allahu mithaqa annabiyina lamma aataynaakum min kitaabin wa xikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminunna bihi wala tansurunna qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala wa ana maakum min ash-shaahidin yàlla nee na alamul arwaax bi ñu defee bi mu laajtee alastu bi rabbikum ba ñëpp uyu dafa trier ay ruux yi gënoon a sell yi gën a nangu yi gën a am leer mu teg leen ci benn barab benn pantre hmm. ne leen di yi kontaan naa ci yéen gis naa bi ma leen alastu bi rabbikum rek ngeen teel uyu dafa am lu ma leen doon laaj est-ce que yéen bu ma leen defoon ay yonent def leen ay missionnaire yóbbu leen àdduna ngeen nekk ci seen mission di ko doxal di ma wooteel ba xëy xëy ma jël Muhammad mii di leer gi nga xam ne mooy seen patron yéen ñëpp ba def ko muy seen patron di seen yonant ndax kenn ku ne ci yéen dina am xol bu yaatu bàyyi mission topp mission wu yonant bi di ko liggéeyal est-ce que di ngeen def loolu loolu bokkoon fii ci wax ñu gën a gàtt mooy président de la république bu xëyoon dajale ay mbokki président am yëpp leneen yéen ñëpp a sax ay président ja mais yàlla dina fal président boo xam ne nii mooy moo leen ëpp grade yéen ñëpp est-ce que kenn ci yéen dina nangu président boobu bu ko yabalee bu ñëwee ci réewam mu gedd poste président sam jox ko kooku bopp kooku doxal nguur gi ba ba mu fay jóge xam nga loolu neexu la nam hmm. yonent yëpp ne effectivement ñu ngi nangu ne bés boo ñu yónnee ba yonent yàlla Muhammad mii dab ñu ci mission dinañ bàyyi ñun suñu mission topp ko moo tax ku foog ne mission yëpp a tolloo yaa ngi nax sa bopp yàlla nag axaltum ala dalikum ngeen sama kóllëre ci loolu convention bi ma signé est-ce que dëgër na ci yéen qaalu aqrarna ñooñ ñëpp ne ñun yàlla signé nañ bis boo ñu joxee nubuwa ak cër gi lu mu rëy rëy bu ñu yonent bi dabee dinañ wàcc summeeku topp ci sa gannaawam liggéeyal kaal yàlla ne kon wa ana maakum ma nit seede naa loolu yàlla miy laaj nag firi ne nañ jàngal leen xikmaam rek la bëggoon waaye xam na ne kenn ci ñii du fekke mission yonent depuis le prophète Adam ba ci yonent yàlla Iisaa cent vingt quatre mille prophètes jaar na fa te yonent bi fekkew ci dund kenn mais dafa bëgg ñu nangu kilifteef hmm. moo tax benn bés oona Seydina Omar Seydina Omar ñëw mu fekk ko mu yor benn document mu ne ko lii lan mu ne ko ay quelques feuilles la ci tawraat muy téere bi yàlla wàcc ci Muusa yonent bi kanam gi changé mu mer ne yéen a ngi commencé di bàyyi li ma leen fi indil muy alquran ak sama sunna di liiri ji beneen téere boo xam ni dañ koo changé falsifié ko xanaa xamoo yow Omar même Moussa bu doon dund laa yastaahu illa an yattabiani même Moussa bu doon dund Moussa mi ngeen di naw mission du wér mukk lu mu topp sama gannaaw doon saxaaba ci man comme yéen comme yéen a am nag chance boobu bàyyi leen xel li ngeen amee keroog dafa mer pour wan la ne yonent yi la yàlla seedeek ñoom ñoom ñëpp ñu d'accord à bu yonent bi ñëwoon ñu bokk moom jamono dinañ ko servir loolu kat mooy seen cër ci la leen yàlla signal ñoom ñëpp nommé leen ñu doon yonent kon ci ngay xamee ne yonent yi ñu ngi doon yonent ci barke kan ci barke yonent bi moo tax ma ne mais ñoom it biñ ñëwee ci àdduna matal nañ ko wax yàlla ndax yonent bu ne lu la sa nit naw naw naw bala nga fay jóge di ne nag suñu patron mu ngi ñëw ñu ne la ah, ak yow li nga def yépp mu ne man kat taalibe rek laa kilifa gi mu ngi ñëw euh, moo tax mu ne fa ni'ma baax na al wafaa matal kóllëre bi vraiment ñoom ñëpp matal nañ kóllëre ndax ñoom suwidu fil ula li ajlika taaha ju'ilu anbiya li zaakal walaa suwidu ñu ngi leen di def ñu ngi leen def ay sang fil ulaa ci kaw démb li aj li ka ngir sa jëmm yow taaha yoon calma ñoom ñëpp ñu ngi leen def ay patron ngir sa jëmm juxilu yàlla nommé na leen anbiya ñu nekk ay yonente li daakal wala ngir alliance boobu ñu signal yàlla ci leneen yàlla nawe comme nangu nañ dogalam ci leneen def ay yonent kon ci ngay xamee ne yonent bi moom mooy yonentu yonent yi ndax d'ailleurs ñoom ñu ngi leen def yonent yonent sax ci nangu gi nangu ak yonent pourtant ñoom yonent yooyu ursilu qablakum bi ramzika taaha amanu bal lahum fa hum rusalaau ursilu yàlla yónni na yonent yooyu yëpp cent vingt quatre mille qablakum avant ngay ñëw yow mais ñoom ñëpp ñu ngi ñëw bi ramzika ànd ak sa symbole taaha taaha yow yonent yi dafa mel ni kon prophétie yow yaa ko moom mais kenn ko ne dañ la ci jox benn flamme nga amee ko muy symbole bi ngay représenté yonent bi moo tax ñoom yonent yi ñoo la jëkk gëm amanu gëm nañ la d'abord ba pare ballawu jotal nañ sa message muy tawxid ak l'unicité fa hum fa hum kon ñooñ rusalaawu say ndaw lañ yow yonent bi qabilu kawnaka al amina wa sayyidan lahum wa huwa simatun xasnaahu li leen may cër boobu yëpp mooy wu nangu nañ kawnaka al amin nekk gi nga nekk le plus sûr muy al amin wa sayyidan ba pare nga nangu ne ñoom ñu nangu ne yow yaay seen sang lahum ci ñoom yow yaay seen patron loolu nag siimatun mandargal na bu rafet te mooy nit boo gisee sa supérieur da nga ko fay nangul ndax bu fekkoon âge la nit di gëne nit ñoom ci zahir ñoom ñëpp ñoo la mag yaa lahum min aimatin umanaau fa li kullin lahu qawmun xunafaau mu leen di nag ne yonent ñoo gore ñoo baax léeg-léeg sax fii nit dinañ la mandaté nga dem nit ñi toppala naan laan yaay yàlla yaay doomu yàlla mbooloo mi neex rek nga commencé farankulaayu naan dëgg la de gaa yi dañ ma xamul rek léeg-léeg di nga yónni nit mu dem nekkal fa boppam mais yonent yëpp bi leen yàlla mandaté ci barki yonent bi kenn fàttew ci mission kenn fàttew ci mission yonent ñun ñëpp matal nañ ko te pourtant am nañ ay taalibe mais teewul dañoo wax seeni njaboot ne leen ñun njabootu jàmbur lañ te muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom yonent yëpp moo tax mu ne yaa lahum maa leen maa leen ñee min a'immatin ci ay njiit ay kilifa lañ umanaa ñu wóor lañu ndax kuñ jox sa mission doxal nga kat na mu rafetee fali kullin lahu qawmun te koo ci gis amoon na ay nit xunafaa ñu jeng dem ci moom mooy amoon na ay saxaaba yu ko gëm mais maa hada fa anta sayyidu kullin wifqa ma allahu yafalu ma yashaau ànd ak loolu yëpp yonte yàlla Moussa li muy bari bari njaboot yonte yàlla Isa li muy bari bari njaboot yonte yàlla Yuusuf noonu yonte yàlla Ibrahima noonu li ñuy bari bari njaboot li ñu leen di gëm-gëm ànd ak ñoom la ñu am yëpp ñoom ak seeni njaboot sa njaboot la ñëw yonent moo tax mu ne maa haada ànd ak lii yëpp fa anta sayyidu lii yow yaay sangu ñëpp ah da ngay de mu ne déedéet coobare yàlla wifqam allahu dafa dëppoog li nga xam ne yàlla yafalu mooy def maa yashaa lu ko sopp yàlla moo bëgg ngay sang mu def loolu yonent yi bi ñu demee ba xam ne ñoom ñëpp njaboot lañ mën a doon ñoom léegi waxatuñu doon kilifa mais nan la ñuy repositionné woo ba kenn ku ne daal mu jéem a respecté parce que bu la leeree ne président de la république benn rek la te fal nañ ko léegi si yitteeb lu mu war a doon nan ngay jege président bu mu wutal la poste bu baax wala yu mel ndax yow mënatoo doon président euh, loolu tax yonent yépp nag ñëw nañ ci yonent bi jéem a repositionné wu am cër ci moom yonent ba ci yonent yàlla muusa ba ci yonent yàlla isa yonent yàlla Muusa dafa ne yàlla subhanahu wa dama liir ci tawraat benn yonent bu bari leer bu bari may bu bari mbooloo boo xam ne dañuy li ñuy loo bi ñuy dugg dugal ci àjjana ñoom xeet woowu loo bi ñuy dugg ci àjjana beneen loo amul lu noonu yàlla ij'al ummata hadihi an takuna ummati yàlla yàlla nga def xeet woowu nga xam ne mu ëpp ñooy ëpp ci àjjana ñu doon sama xeet yàlla nekk déedéet xeet woowu ñëwaguñu xeetu Muhammad la yonent yàlla Moussa nekk ah teraanga nag mu ne ko teraanga jox naa leen ak yeneen yu ma nëbb yoo xamagul yonent yonent yàlla ñaan yàlla ne kon nag maa ngi lay ñaan nga def ma benn sympathisant ci xeetu yàlla Muhammad moo tax yonent yàlla Moussa am accès ci xeetu yonent bi au delà de doon gi mu doon prophète am njaboot mais daanaka membre la ci suñu xeet ñun ndax proximité boobu gis nga ni mu mel ak yonent bi ba bi ñuy wàcc julli moom moo fa doon wax dellul ak yéegal ak wàññil ak di dafa pare pour walla ne moom proximité bi mu am ak xeetu yonent bi daanaka da cee bokk moo tax mu ne fa lidaaka te mën naa Muusa alayhi silmu rabbi bi kawnihi la xayaau an yakuna bi ummati lbadri taaha wa kada isa kulluhum awfiyaam fa lidaaka ngir ngëneel lu rëy loolu nekk ci xeetu yonent yàlla Muhammad te mën naa mébétoon na sax Muusa yonent yàlla Muusa alayhi silmu rabbi yàlla jàmm sama borom ne ci moom bi kawnihi pour mu nekk la xayaaw àndul ak kersa de amu ci kersa an yakuna mi ummatil badri mu bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad Taha yonent yàlla Moussa ñaanaloon yàlla Isa tam bi mu xoolee leer gi ak may gi ak teraanga ji dafa ne yàlla yàlla na ma boole ci xeetu yonent yàlla Muhammad ak xoolal li ko topp yëpp ca indi yàlla ne ko yow Isa nangul naa la ko moo tax moom bosam moo gën a fés moo tax yàlla interrompre mission mu dem asamaan ba yonent bi ñëw fi ba oote fi ba dem ba xeetam di yokku di yokku moo tax mujj dundam moom dina ñëw en tant que sympathisant moom bientôt yonent yàlla Isa dina wàcc doon benn jullit ci jullitu yonent bi parce téere yi dañu wax ne yonent yàlla Isa bu wàccee du amee poste yonent moom mission bi na ci prophétie trois ans la woon jeex na dana fi ñëwaat nag doon benn mujaddid ci diine islam ci alquran lay àttewoo ak sunna kon loolu bu ñaanoon ne dafa bëgg a bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko ko moo tax ñu ngi wax ne moo xeetu yonent yàlla muhammad ëllëg ñooy dëkk ci jannatul firdawsi ci aliyin parce que moom it quelque part membre la ci xeetu yonent bi au delà li mu nekk yonent moo tax mu am ñaari martaba en tant que un prophète euh, ak itam fa tabarakallahu doon un ci xeetu yonent yàlla Muhammad yonent bi nag sallallahu alayhi daan wax ne bokk na ci sécurité bi yàlla defal sama xeet ñu ngi ko ubbee ci yonent tëje ko ci yonent moom mooy yonent bi ko ubbi yonent yàlla Isaa moo koy tëj kon diggante boobu lu fa jaar rek ak lu bàkkaar yi bari bari yàlla mën na koo jéggale daal ko yàlla defal moo tax mu ne wa kada isa kulluhum awfiyaau yonent yàlla isa nangu na cëru yonent bi ba ñaan yàlla doon njaboot ci yonent bi mais kulluhum yonent yëpp awfiyaau matal nañ kóllëre gi yàlla siñante woon ak ñoom ci xëy bi ñoom ñëpp dem nañ tey wa kadaka alxalilu yaftaxiru dëh rabikum kawnahu aban shurafau yonent yàlla ibrahim mi nga xam ne moom it moom mooy bàyyu ñu baax ñëpp yonent yàlla ibrahim boo ko fekkoon fa mu nekk laaj ko ban fierté mu gën a rëy ci bi nga am dalay wax ne doon gi ma doon bàyyu yonent yàlla muhammad ndax yàlla moo ne yonent bi ittabi na nga topp millata abika sa diinay baay ibrahim baay boobu mu ko wax ibrahima mooy baayu Ismail Ismaila moo jur naabit naabit boobu mooy maamaatu maamaatu Adnan Adnan mooy maamaatu maamaatu yonent bi sa doom la arab noonu lay def da gis koo xam ne nii da ngay dégg ñun ñooy wax sëtu diw mais arab doomu diw lay wax Ibrahima nee na fierté bi gën a rëy ci bi mu am mooy doon gi mu doon bàyyi yonent moo tax mu ne wa kadalika alxalilu wa kadaka alxalilu yaftaxiru mu ngi puukare woo dëhër giiru jamono bikum ci yow kaw na wu ngir nekk gi mu nekk aban di bàyyi ba pare di aba shurafa bàyyu shérif yëpp Ibrahima képp kuy shérif moom mooy sa bàyyi eh, ak képp kuy jurit mais ñooñu di ñaan yàlla pour bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour foog ne dañ ñàkk ngëneel ay sàng lañ nag ndax tajalli bi gën a rëy ci bi yàllay joxe mooy annubuwa moo tax mu ne anbiya kulluhum wa kullu waliyin min sanaakum yanaalu fadlan alaau kulluhum yastamiddu lfadla bi nuuri badri taaha lahu ibtidaa la intihaau ñii maa ngi lay wax ne la waxuma sax yonent yi ma tudd mais anbiya képp kuy yonent kulluhum ñoom ñëpp ko kullu waliyin ak bépp waliyu ndax nag buñ nee la yonent rek dafay xat cent vingt quatre mille la jeex nañ mais li ñëwaat ci ay waliyu ñoo ko loolu fuuf ci ay yooni yooni yoon te ñooñu ñoo nekk ci suufu ba nubuwa muy octave yeeg euh, seen seen mbooloo mais ñoom ñëpp yanaalu ñu ngi am fadlan ngëneel min sanaakum ci sa leer yow yonent bi ñu ngi amee connexion ci yow ñu ngi amee énergie ci yow ala euh, loolu ak kawe kulluhum ñoom ñëpp muy yonent yi ak wëli yu yës tamit dul ñu ngi tëbboo ngëneel bi nuuril badri ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku xamoon nag benn centrale boo xam ne mooy jox ñëpp courant war nañ nangu ne centrale boobu am na doole moo tax centrale la boo xam ne nii mooy Badr moom nag lahul tiddaa am na fu mu fu mu tàmbali ndax ku dul yàlla rek am nga foo tàmbali waaye lan lan ci xaaw amul fu mu yem bi yonent bi amul fu mu yem ndax leeram day yokk rek yàlla nga yàlla fay leer bu bari boobu ak énergie boobu moo tax maam aadama raw ñëpp ba yàlla di sujootloo moom aadama ci malaaka yi di sujootloo malaaka yi ci aadama te du kenn ku dul énergie bu leer yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla xamalee lu malaaka yi xamul moo tax mu ne fa bi nuurin min ka bi mu dajalee malaaka dafa ne inni jaailun fil ardi xalifa man yàlla dama bëgg a def ci suuf benn kuutaay boo xam ne moo may wuutu malaaka yi ne koy ay yàlla nan ngay defee ku la wuutu ci kaw suuf di fa tuur deret di fa dog mbokk te ñun bu fekkee ku la jaamu rek nga bëgg ñun ñu ngi ci asamaan di la fi jaamu suba ak ngoon cee nga ñoo wàcc ci àdduna boog ñu jaamu la fa yàlla na leen xam naa loo leen xamul bind maketu aadama ci seen kanam muy suuf ak ndox bind ko tooyal ko ci seen kanam muul ko ba mu doon jëmmi nit mu ëf ci ruuxam moom yàlla subhaanahu wa mu doon yàpp ak deret jub taxaw seen kanam ñoom malaaka yi gis kon ñoom ñëpp aadama seen rakk la ndax seen kanam lañ ko bind yàlla ne malaaka yi pour wan leen ne xam naa loo leen xamul lépp lu mu bind mu tekk ci seen kanam ne wax leen ma lii nii nan la tudd malaaka yi tiit ne subhaanaka laa ilma lana yàlla ñu ngi tudd sag sell ndax ñun mënuñoo xam lu dul loo ñu xamal te lii nii ñu ngi koy dogg gis kon mënuñu koo xam hmm. yàlla bëgg a wane supériorité aadama mu ne nag aadama mii nga xam ne seen kanam laa ko bindee nekk ngeen fi ay milliards ak amul waaw léegi yow aadama wax ma yii nu mu tudd aadama di lim benn par benn benn par benn ba yëpp jeex malaaka yi loxu ndar loolu yàlla mu ci bëgg xamle effectivement ne ku xam rek yàllaa la xamal ndax bu doon yàgg fi mooy tax a xam ñoo fi jiitu aadama aadama hmm. hmm. moo tax jiw xale la amul xam-xam jumte la hmm. balaa koy yàgg nañ fi lool ba bi ñuy bind aadama ñu ngi toog aadama wax leen luñ mës ta xam yàlla xikmaam la ci doon wane yàlla ne leen nag comme def na lii sujjóot leen ñu sujjóot ñu naw aadama nag yéemu ci aadama ñu kon nekk yàlla ki mu ne woon mooy xalifaam mat nag ndax kiñ bind ci kanam mu am xam-xam bu toll nii ak ñun niñ fi yàggee dëgg-dëgg ki mat na xalifa mais loolu du woon aadama leeru yonent bi la woon looloo tax mu ne fa bi nuurin min ka ci sa leer yow yonent bi yu àllamu ci lañ jàngaloon aadama bi ulumin ci xam-xam yoo xam ne mu gën yu xóot a xóot la fal asmaaw ak tur yi yépp ci sa leer la woon kon yàlla daal dafa mel ni dafa connecté aadama rek wala partagé ko ci leeru yonent bi rek mu xam yooyu yëpp aadama yàlla dugal ko àjjana malaaka yëpp naw ko nag wax dëgg yàlla yàlla naka la aadama tëdd di nelaw yàlla rocci ci faaru càmmiñam benn jëmm ju mel ni moom muy xewwa bi mu yeewoo gis ko mu xam ne kii wétteelam la mu song ko yàlla ne ko na julli ci yonent bi avant mu lay dagal ci la xamee ne yonent bi kon foor mu julli ci moom mu soog koo amee moo tax ba fii may wax yow bu ñuy takk soxna dinañ jàng alquran julli julli ci yonent awaa nekk ak moom yàlla na leen nag ajjanaa ngi noonu fu leen neex dem leen ba mu des garab gi bu leen ma ko laalal ñu dem ci xikma yàlla ak coobareem ñu laal ko bi ñu ko laalee lekk ci yàlla leen fa bi tuumi naa leen fii nag ndax ajjana kenn mënu fay mooy yàlla yéen ci suuf ngeen jëm nga xam ne loolu xikma yàlla la ku ci mere aadama xamoo ko ndax yàlla bi muy jën ak malaaka yi di def concertation dafa ne woon dinaa bind ci suuf sama xalifa waxul woon ci àjjana kon aj aadama destination du woon foofu foofu escale rek la woon foofu fa taxoon nag ñu bind ko muy suuf faw mu def lu tax ñu yóbbu ko fa ndax prison la bañ ko fa yóbboo nag aadama tiit soxnaam tiit ñuy jooy rek yàlla ne fa talaqa aadama min rabbi kalimatin aadama nag yàlla saka ay baat fa euh, mu wax ko ba mu ko waxee guddi fa taaba alayhi yàlla baal ko te muy laa ilaha illa anta subhanaka inni min alzalimin ba pare aadama dafa julli ci yonent bi ndax dafa xam ne yonent bi taxoon yàlla ne ko jullil ci moom soo sa soxna dagan la kooku bu ko ñaanee ci barkeem dina ko dina ko jéggal hmm. yàlla fa taaba alayhi moo tax mu ne bu bikkum ci sa barke yonent bi tiiba ci lañ jéggal baadahu aadama euh, gannaaw bi mu tooñee bi mu nee nag baal naa la yàlla bi mu nee ko baal naa la xam nga ku la tooñ nga génne ko sa kër boo ko baalee loo war a def da ko war a delloo kër aadama foog ne dañ koy delloowaat foofu mu ne ko noonoo fii ngay toog nag toog fii yaag say sët ak say doom ngeen di ma tooñ di ma jéggalu di ma tooñ di ma jéggalu ba ngeen bari lool ba mujj jamono ma boolewaat leen yéen ñi ma jéggalu yéen ñëpp ci barke yonent boobu dugalaat leen àjjana xam nga li teraanga ji rëy na moo tax mu ne tiiba jéggal nañu ab naa ahu ay doomam ci gannaawam al awfiyaa ñi matal kóllëre laa muy julli ji fataaba moo tax dina tey alliqaawu bis buñ dajawaate xam nga aadama bis bu duggee gis nangami millions yi sëtam ñëpp duggaat àjjana te moom rek a fa newoon mook soxnaam xolam dina sedd de te loolu mu ngi amee ci sa barke yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jaahin mi indika xaaza nuuxun bi amaanin fa yuxraqu l gannaaw aadama ak idrisa yonent yàlla nuux moo ñëw yonent yàlla nuux neuf cent cinquante ans am na ko ci aw xeetam di leen waar yàlla nee na ni wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla ñu def ko reetaanukaay jàppe ko euh, fowukaay génération bu dee beneen bu juddoo jàppe nuux fowukaay di ko def ba nuux mu gi découragé ne yàlla maa ngi yëg ne ñii baaxuñu seeni doom baaxuñu ñii juddoogul sax ñu baax parce que nag ku ne xamee mbon dañ koy donnu mbaax itam dañ koy donnu ñii nag ñu baax daf fi nekkul ba ñu war a jur ñuy baax comme noonu na nag te àdduna bi pollué wu na faf ka raxas benn yoon rabbi laa tazar bul bàyyi alal ardi ci kaw suuf mais kéefirin ci yëfee daara kenn kenn kenn éliminer la koy ñaane ci barke yoon ci yàlla muhammad mi nga ñu binde ci leeram yàlla nangul ko moo tax mu ne wa bi jaahil bi indika ci sa barke yonent bi xaasa ci la amee nuux bi amaanin ci sécurité kóolute boo nee nag yàlla alagal nit ñi yow est-ce que nga mucc parce que wóorul yàlla ci barke yonent bi la ne ko defaral gaal kon mu defar gaal ñi ko gëm dugg ci mucc ñi ci des lap mooy déluge bi nga xam ne moo amoon ci humanité jëm de yonent bi sallallahu alayhi nag danaan wax ne ana safinatu nuux man nag ci misaal maa ngi mel ni gaalu yonent yàlla nuux boobu man rakiba nii képp ku ci war najaa mucc képp ku ci warul nooy def da ngay la moo tax mu ne fa yuxraqu labal nañ aadaa u noon yi képp ku duggul ci gaal googu rek dee ñoo ñu duggoon ci gaal ga ñoo produiraat li des ci àdduna kon bu dul woon gaal googu àdduna keroog fa la doon yëpp kon diggante aadama ba noox foofu àdduna tukki na fa euh, loolu ñu ngi ko amee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa bu dee yonent yi ay xeetam la ñun moom lu ñu war a doon kon moo tax mu ne wa xalilun fa xamadat naarun alayhi wa bi ibnayhi xiisa kullun najaau wa xalilun euh, maam ibrahima xalil Euh, bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu janoo ak Namrud ibnu Kuush merloo ko def taxattumul asnaam maanaam daaneel seen yàlla yi dañu mer ne ahriquuhu na ngeen ko lakk nangeen ko lakk waa Baabil Baabil la xewe woon wala uur fële ci Iraq dajale matt bu bari taal ko nee nañu taal bi tàng na ba diggante safara bi ak asamaan si picc mu naaw dal euh, jaar euh, traversé ko rek tàngaay bi dina la alawtiku ba nga daanu ci biir safara bi hmm. ñu dugal ci Ibrahim yàlla musal ko ci barke yoon ci yàlla Muhammad yàlla ne qul naa yaa naaru kuuni bardan wa ala Ibrahim ku doon weddi nag dina leen déedéet yàlla moom moo waxal boppam kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim mais yàlla ngi jël binde ibrahima ci leeru kan yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ibrahima moo yor leeru yonent bi bu lakkoon foofu dee yonent bi dina dina gën a àdduna déedéet kon faw mu mucc moo tax mu ne wa xalilun maam fa xamadat fay na naaru safara alayhi ci kawam wa bi ibnayhi ñaari doom yi muy ismaila ak ishaq xiisa laqal kullun ku mu ci doon najaaw ak mucc ba am nañ njaboot wala nga jël ñaari doom muy abdullahi ak ismaila muy zabixay di ñoom ñaar ñëpp naroon nañ leen rey mais kenn ku ne yàlla jote kii ci ay gëlëm muy abdullah yàlla jote kële ci benn dibxin azim muy xar mu mag a ma summa huudun wa saalixun fa bijaayin minka yacluuhu naaqatun asmaa'u yonte yàlla huud yàlla mu ngi ko yónni woon ci samuuda fee ci yaman yaman ahqaaf fa la yàlla yónni woon yonte yàlla huud mu nekk fa ñooñu naan kaan man ashaddu minna quwwa asa yàlla ji nga ñuy tëkkoo ñun ku ñu ëpp doole amul ndax ay mbër woon téere yi nee nañ daan nga ci gis nit koo xam ne toll na ne sept mètres ci kaw ñii ne cinq mètres waaye nga di nit lañu woon ku ñu mës a dóor nga daanu yont yàlla wut bi mu ne leen boo leen gëmul yàlla da leen dugal safara da leen mbugal ñu ne ñu réyee ñoom ba daanu ci suuf ne man ashaddu minna quwwa ñen ñooñu ëpp kan moo ñu war a ëpp kattan ñun ba naan da ngay dugg yàlla nee na bu bu ma xamoon bu ma fi andi woon ay malaaka ñuy kiiante xëy na sax day neex ngelaw laa yabal rek ngelaw lu sedd hmm. ngay kof xam nga loolu moom doo xeex xam lay wax dafa am doole dooleem boobu ci énergie lay doxe hmm. boo ko dugalee ci du yëngooti hmm. yàlla nee na fa arsalna alayhim rihan lu sedd guy ñuy kof kofi ba dee seetal loolu daa garab yi daanu bâtiment yi daanu ñi doon wax kàttan yàlla na fa asbaxu mujj nañ xëy fii ci diyaarihim ci seen kër yi jaasimina ñoom ñëpp dañoo dañoo banku ndeysaan dee ala bu'dan li samud yàlla nee na ak ñoo torox loolu xettali googu yonte yàlla Huud am mu ngi ko amee ci barke sëtam di yonte yàlla Muhammad wa Saalih yonent yàlla saalix moom it euh, waatil quraan ak yàlla yabaloon mu dem fa aw nitam di ka rëy naan yaa saalixu walaw laa rahtuka la rajamnaaka wa ma anta alayna bi aziz yow saalix am nga chance bu dul woon sa famille bi nga xam ne dañ leen respecté dinañ la sànni ay xeer ba nga dee yaa qawmi arahti a'azzu alaykum min allah yéen sama nit est ce que sama famille ngeen war a gën a respecté que yàlla bi ma bind ñu koy rëy ba yàgga ñu def délégation ñëw nekk bu ñun sax ba ñu ñu la gëm mais boo bëggee ñu gëm la gis nga ngandam montagne bi ñu janoon génn fi benn géléem gu mag boo xam ne dafa ëmb ba toll ci weeram bu ko defee mu àkku si suñ kanam ñu xam ne sa yàlla ji dëgg la xam nga loolu sabotage hmm. mais teewul yonte yàlla saalix julli ñaari rakk ne yàlla maa ngi lay ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga leen may lool dañ jékki-jékki rek montagne bi xam génn gëléem goo xam ne moo ëpp étage gantam gëléem mooy gëléem gi àdduna mas a gis mu gën a ngand ci àdduna artificiel la kenn liggéey ko ci euh, euh, kii bi rek la génn euh, mato ci seen kanam akusi ci seen kanam am meew nag meew mu bari ñu mu di ree ci seen biir naan pourtant wax na dëgg de keex keex wax na dëgg yont yàlla saalix ne leen nag naaqatullahi fa daruha taakul fi l ardi wala tamassuha bi suu yàlla nee na moo leen jox géléem gi pour ngeen gëme ko ci gis ci ay kéemaanam mais nag wala tamassuha bi suu bu leen laal géléem gi bu leen ko def lu bon hmm. bu leen ko rey bu leen ko tere ndox mi ñu toog ba yàgg ni ñun daal ñoo ñàkk fayda teen boo xam ne dëkk lëm moo ci waroon a naan gëléem gi bu ñëwee naan ndox mi yëpp dëgg la doonte soowam la ñuy am ñu daal duñ ko nangu yàlla ne fa aqaruha ñu ñu ñu loj ko ñu rey ko ba ñu bàyyee ba saalix dem dañoo daje tis'atu si yufsiduna fil ardi wala yuslihun neuf personnes yoo xam ne ñoo daje fexeel gëléem gi ba rey gëléem gi fees ka tong tong yàpp bi bi ñuy séddale yàpp ba di ko lakk ci la saalix ñëw ne waa lii la la ñu ne euh, <laughs> sa sa waaji de la ñu mujjee loj loj rek tabaarakallah mu ree yëngal bopp bi ne tamattau fi diyaarikum thalathata ayyam comme rey ngeen ko trois jours moo leen dese ci àdduna ñu ne ko ma ne nay tay laa wax alak ñu tey euh, ñetti fan ndeysaan dëkk ba yàlla anéantir ko dañoo jekki jekk jibril ñëw yuuxu ñëpp dee yàlla ci yàlla oto mu ne wa saalix fa bi jaahin fa bi jaahin ci sa barke yaaluhu ci la am naaqatul gélém goo xam ne asmaahu mucc la ci sa barke pour wan teranga waaye kiimaanu yàlla aw nitam mais mucc ñu ko gëm wa ka muusa fa najjaa min kaydi firawn maa haaruna xazuka alkuramaau ba tey yow yonent bi ci sa barke yonent yàlla Muusa ak frère bu ñuy haaruna ñoo bokk ndeeg baay haaruna moo mag Muusa ñoo ñoo toppante bi yàlla yónnee ci firawna ak mu firawna mu beew moomu dafa mujjee ñu wan ay kéemaan yu baree bari firawna dafa mujjee ñëg ne dinaa leen rey tëkku di laa leen rey ah yéen ci yàlla Moussa nag ànd ak banu Israil yàlla nag isri bi ahlika bi qitaan min al-layl ànd ak sa waa àndal ak sa waa kër ngeen génne Égypte génne Égypte Firawna ba mu ko yëgee toppaleen wa junudu ak euh, armée bi ñu ñëwee nag di daw ba ci géej gi kuy daw nag ba ak si géej gi war a taxaw hmm. bi ñu ñëwee ba ci mer Rouge bii nii Eh, waa banu israil tiit ne yaa Muusa udina min qablu an taatiyana wa min baadi ma jiitana Muusa Muusa lakkal nga ñu avant ngay juddu avant ngay ñëw fii ci dëkk bi dañoo sonnoon lool xeetu liggéey bu ne liggéey loo nga ñëw ne yonente ñu gëm la gën a sonnaat xam nga lu xew solution nag day am baa ñu bàyyi la yonent yàlla Moussa leen laa taxaf inna ma'i rabbi sayahdini yàlla mu ngi ànd ak man du ma toroxal ñaan yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla ne ko jëlal sa yat wi nga dóor ko ci géej gi sama kattan dina ko xar moo tax mu ne wa ka Moussa comme Moussa fa najjaa yàlla musal na ko min kaydi Firawna ci pexem Firawna te mooy bëgg ko rey maa Haaruna mu ànd ak Haaruna xazu ko si cër daal yonent bi da ngay xool mais boo ko gisee da nga naan kura kura kurama mooy ñu tedd maanaam ñi kawe VIP yi hmm. ñoom ñooy njabootu yonent bi sallallahu alayhi ndax nag ñi yàlla bindee ñu ngi amee ci barke waaye bu mën a tuddal li yonent yi ak seeni may ni mu kaye kawe ci ngay xam ne kon ñi ci suuf njaru la wax hmm. yuusufun qabluhu fa mullika misra fa bi jaahil ladayka yuxwa istifaau yonent yàlla yuusuf mi nga xam ne ci teen la lañ ko sànni woon mu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu jaay ko ak njaam ba mu dem ci maliku misra azizu misra nekk fi ba ñu tëj ko ci kaso mu génne yilifaat àdduna ci sa barke yow yonent bi la ko amee moo tax mu ne yuusufun qablahu jëkk Muusa ndax yonent yàlla Muusa ak yuusuf nee nañu trois cents ans dox na fa fa mulika ñu ngi ko moomale misra misra fa bi jaahil la day ci sa barke yonent bi yuxwaa ci la laxe istifaaw tànn gu ko yàlla tànn def ko buur def ko yonent ba ci seeni sët wa suleymaanu daawuda wa suleymaanu yonent yàlla suleymaan ak daawud muy baayam suleyman daawuda moo ko jur wa shuaybun ak abu madiyan muy shuaybu moom lañ tuddee seen euh, shuaybu yi ngay dégg ci réew mi yëpp qad uniilu ñu ngi leen may bi fadlikum qad uniiloo may ameen ameef nañ bi fadlikum sëngëleel aliyaaw yu kawe suleyman euh, walaqad aatayna suleymaan alxikmata walaqad aatayna daawuda suleymaan alxikma fa qaala alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ne li gën a mooy sagesse mooy xam-xam nu woo ak nguur ñaar yëpp paqueté naa ko jox ko daawuda ak suleymaan ñoom itam ñu sant ma wax dëgg yàlla reconnaître Shuayb bu itam mooy cheikhu Madyana moo yar yonent Muusa sët la ci Ibrahim ñoom ñëpp ñu ngi am barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa zakariyau summa yaxya waa isa wa kada al anbiyau wal awliyau ñu mujj ci yonent yi laata yonent yàlla muhammad mooy yonent yàlla zakariya ak doomam yaxya ak isa ñii ñëpp ñu ngi am li ñu am ci seen ngëneelu yonent bi ci gàttal daal wa kada al atqiyau képp koo gis mu ragal yàlla bañ koy tudd hmm. wal awliyaawu ak waliw yi ñu ngi am ngëneel bi ñu am ci barke yonent bi sallallahu alayhi pourtant yow yonent bi tey lañ la weddi mais même xeet yi fi jiitu woon laata yow yàlla di lay yónni ñoom ñëpp ku ci masaana am soxla day bàyyi bu guddi mu ñaan ci sa barke pour yàlla faj soxlaam moo tax mu ne umamun qablakum yahudun wa nasra ni yastaftihuuna minka rajaau fa ujuy fa ujibu bi jaahikum anta nuurun thumma la mudghatun wala umamul xeet même xeet yi nga xam ne qablakum ñoo la fi jëkk sax yahudun moo xam yahud yi la wa nasraan ak nasraani yuuna yi yastaftixuuna dañ daan ñaan yàlla di ubbeeku ci sa barke min ko rajaaw seen yaakaar maanaam ku ci masaana am soxlo ci barke yonent bi lay ñaan te lii yàlla moo ko wax ci alquran ne wa kaanu yastaftixuuna ala alladina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bihi falanatullahi ala zalim moo tax bu ma déggee nit wala ab jullit ne yonent bi kenn warul ñaan ci barkeem man kaa nga may def parce que yàlla moo wax ci suuratu baqara ne même yahud yi laata yonent bi ñëw buñ masaana am soxla dañuy ñaan ci barke yonent bi ak nasaraan yi ne yàlla maa ngi lay ñaan ci sa barke yonent bi war a ñëw ci mujjug jamono yàlla na nga faj suñu soxla sàngam sàngam yàlla daan faj seeni soxla yàllaa ko waxal boppam ci alquran ne wakkaanu ñoom yahud yi nekkoon nañ a dañ daan ñaan ubbeeku ci barke yonent bi ala alladina kafaru ci ñi yëfari daan leen gañe ci seeni combat waaw falamma jaahum ba leen dikkee nag maa arafu lañ xamoon te mooy critères yi ñu jàngoon ne yonent bi noonu lay mel mais comme bokkul ci seen famille muy bani israël kafaru ñu weddi ñii yàqul yàlla ne fa laanatullahi rëbbam yàlla alal kéefir yàlla nekk ci yéen ndax nangul nit bi mu juddoogul mu ñëw nga ne du moom bañ te xam nga ne au fond moom la problème am na moo tax même yahud yi ak nasaraan yi laata ngay ñëw dañ daan ñaan ci sa barke yow yonent bi sallallahu alayhi wa waaw kon ku toog ba tey nga ne kenn warul ñaan ci barkeem te yow nga gëm ko yow am nga problème moo tax mu ne ñooñ bu ñu masaan ñaan sa barke fa buur daan nañ leen wuyu bi jaahikum ci sa barke yow daal yonent bi daal ci gàttal ante nuurul yow daal leer nga bi ngay nekk leer sama foofu laa mudghatun amul woon doonoo woon yàpp wala jismaaw doonoo woon yaram leer rek nga woon nga daan faj say aajooy maam ci sa barke te boobu nekk goo jëmm fala anta damirul kawni fama min fatratin fi zamani illa turaau tunqidu almustaghithina an kurabi dahri bi idni ilahi laka mictaaw ku juddoogul di faj soxlay maam yi ak maamaat yi kooku booy juddoo nooy def boo ñëwee ci àdduna moo tax mu ne fala anta yow yonent bi damirul kawni yow yaay conscience universelle bi bàyyi Cheikh Tidiane si doon wax conscience bi nga xam ne jamono ju nekk yaay dundal jamono jooju fa ma min fatratin amul benn époque fi zamani ci jamono illa turaabu lu dul di di leen dafa gis bu dul bët sax mais di science ak conscience loo fay def mu ne tunqisu ngay xettali mustaxisiina ñeer ñaan yàlla ci sa barke an ku rëbbi dëhri ci xat-xatu jamono dan nga leen xettali ci sa barke bi isnil ilaahi ci ndigalal yàlla la ko yàlla nag ñoxtaawu moo la jox loolu kon daal yow yonent bi miracle nga lool fa ayaatun ladayka azzat li wasfin kulluha mucjizatun laa tuxtawaawu fa ayaatun say kiimaan ladayka ci yow azzat dafa jafe li wasfin ci melal ko yow yàllaa la def nga yéeme rek ndax kulluha kiimaan boo jël rek mojjisaatun mojjisa la laa toxtawaawu dee ku ko gis ci keneen moom yàlla moo la may loolu nga doon daal kiimaan mu commencé nag di leeral kiimaan yooyu yonent bi sallallahu alayhi kiimaan la mais doyoon na ci rek benn bi nga xam moo gën a yéeme ci lépp te mooy alquran moom lay sonko euh, leeral alquran ay ngëneelam ay chasesam yal na yàlla fayal ñu boobu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla ku neex a bëgg la ku neex a sopp la ndax yàlla moo matal ay jikko yu tedd ci moom hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa